jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak jàmm ji info saa su ne bisimi la ñu jukkil leen ci li fi jotorot cay xibaar te gën a fës ci ayu bés yu ñu nekk ñu dem rek fële ca wakkaam ab xibaar bu naqari lañ fa daal di jotandi niki tey jii ci suba xale bu góor bii di wuyoo ci turu Mamadou Ba ay atam toll ci ñaar fukk moo fa daal di dóor ab cousin wam cousin bi nag ay atam toll ci fukki at ak ñaax ba mu sax mujjee ñàkk bakkanam lañ ñu xamal ni nag moo leen daal di jotale ñoom ñaar moom Mamadou Ba moo di yëkkati ay koppar daal di koy jox tout tànk bi nga xam ne atam fukki at ñaar rek la daal di toll ngir mu daal di fay ji ab courant ci noonee nag gone gi daal di réeral xaalisu courant bi niki nag bi mu ñëwee di ko ko nettali rek la Mamadou daal di koy jàpp dóor ko dóor yi metti sax ba daal di toj boppam bi ci noonee nag gone gi daal di sonn lool ñu daal di ko yëkkati yóbbu ko ci l'hôpital bu nekkee ca Wakam ginnaaw bi nag docteur ya daal di xool xam ni gone gi dañ ko dóor dóor yi metti ñu daal di woo gendarmerie bu Wakam ci noonee rek xale bi daal di dem euh, coma ñaari fanu yàlla euh, ba sax mu mujje euh, ñàkk bakkanam ci noonee nag Mamadou moom moom gendarmerie bu Wakaam daal na koy teg loxo jamono ji may wax ak ba tey rek ñu daal di dem nag ci lango politique bi daal di fekk nag ki nga xam ne moom moo di xalifa Sall ginnaaw nag seen meeting bi ñu doon amal ni ki démb bëri na ay kàddu yi nga xam ne xalifa Sall daal di na ko yëkkati bokk na ci rek ci élection locale yi nga xam ne ci lañ daal di jëm moom Khalifa Sall ma ngay xamle ne nag yile élection du élection nationale waaye élection bu am solo la ci ñoom leneen rek li nga xam ne Khalifa Sall daal di na ci àddu mbirub sàcc bi moom dafay daal di doy élection ren yi bëgguñu ñooñu ñu daal di ci bokk ba tax na ma ngay xamle ne nag fépp rekk ci Sénégal seeni mandataire euh, ñanga fa euh, ba tax na sax moom ma ngay euh, dànkaaf ak di woo ñi nga xam ne ñooy ay ñoñam di leen xamal ne nag képp koo xam ne rek bokkoo ca koñ ba mbaa ca gox ba wala sax ca dëkk ba ñuy voté bu ñu nangu benn yoon ñu daal di koy voté ndax nag loole sax mën naa lëndëmal seeni xel ba tax càcc daal di ci am ba tey rek leneen li nga xam ne Khalifa Sall daal dina ci àddu bokk na Euh, tiituñu ragaluñu xofuñu waa benn bokk yaakaar yi te ñoom bokkuñook ñoom ndax ñoo leen gën a ci yile euh, terrain. Euh, leneen rek li nga xam ne xalifa Sall daal na ci àddu bokk na ci nee na nag bisu vote ya bu daal di jotee fajar daanu ubbi nag bureau de vote yi waaye nag fukki waxtu ak juróom-ñeent bu jotee daanuñu ko tëcc bu ñu noppee nag daal di compter seeni xob daal yëkkati nag Barthélémy Dias daal di koy yóbbu ci mairie bu Ndakaaru leneen rek li nga xamante ni ba tey rek daanu ci àddu euh, beneen nëpp xibaax bu tiis rek bi nga xamante ni dalatina sunu kaw Euh, militaire bi nga xamante ni dañu ko daal di dóor ab bal ci bopp mu daal di ñàkk bakkanam mbir ma nag euh, ma nga xewee ca dëkk bu ñuy woowee euh, Séléti nekk nag ca boori Gàmbi ginnaaw bi nag ña ngi xamal ni daal mbir mi ma nga xew ni altine fukki waxtu ak ba mu jotee ci noonu rek dañu ko daal di dóor ab bal da ci bopp jamono njak jamono ji ñu koy rawale ngir yóbbu ko ca kër docteur gannaaw bi nag l'hôpital bu ñuy woowee Juloli lañu ko doon yóbbu rek foofe sax la daldi di ñàkkee bakkanam euh, ci yoon bi ñu daldi di koy jeexalee ak beneen xibaar bu doyati waar rek bu daal xew fale ca Jurbel kii nag ab sàcc la moom la mu doon sàcc rek moo di ab saret ca noonee askan wa daal di génn mbir ma nag ma nga xewee ca Diourbel ca diwaan bi ñuy woowee pikin ginnaaw bi nag sàcc ba la ñu daal di jàpp dóor ba mu sonn ba sax nag mu mujjee ñàkk bakkanam fa ñu ko doon dóoree ginnaaw bi nag ña ngi xamal ni uh, ba police ñëwee ngir xool uh, waajoojee rek lu ko dal wala rek la naka la daal di uh, faatoo ñu ne nag dañoo fekk ay gourdin wala loo xam ne rek jàpp nañ ne buñ ko dooree doomu aadama mu daal di faatu moom la ñu fekk ca boori néew ba ak fas ba nga xam ne moom la doon sàcc ginnaaw bi nag police daal di jël koor ba ba noppi daal di fay jàpp ñetti nit ci biir ñetti nit yooyu sax mën ngeen a jàpp ni kenn ka borom saret ba ñu doon sàcc la mbokki jërë ngeen jëfa li moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon leen ko jottali sant ngërëm ñeel leen sant ngërëm ñeel sama cadreur Omar di leen jox rendez-vous très